asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokkum jullit dellu siwaat naa ngir fàttalante ak yow ci beneen laaya mbaa yeneeni laaya vidéo bii nag yaa ngi jandook laaya joo xam ne mu ngi ci suratu Maryam li ma bëggoon def ko jàngat tey maak yow ñetti aaya lay doon laayab juróom-ñeent fukk ak ñett laayab juróom-ñeent fukk ak ñeent laayab juróom-ñeent fukk ak juróom tàmbale suñu borom tabaaraka wa taala fii muy wax naan in kullu man fi samawati wal ardi illaa aati rrahmani abda laqad axsaahum wa addahum adda wa kulluhum aatihi yowma alqiyaamati farda lan la sun borom tabaaraka wa taala bëgg wax bokkum jullit yàlla nee in kullu man fi samaawaati nee na ñëpp képp koo xam ne yaa ngi ci kaw asamaan doon malaaka ñëpp amul settee maanaam ñëpp ñi nekk kaw asamaan ta doon ay malaaka ñëpp rawaxal de amul settee jibril ci la bokk mikaayil ci la bokk israfil ci la bokk mboolem luy malaaka nekk ci kaw asamaan ci nga bokk in kullu man fi samaawaati ci la bokk wal ardi ak mbooleem lu nekk ci kaw suuf di mbindeef ci ay jinne ak i nit ñépp ci lañ bokk kon képp kuy doomu aadama mbaa ngay jinne mbaa ngay malaaka yéen ñépp la suñ borom tabaraka wa taala boole woo lan la bëgg a wax foofu nee na illaa aati rahmaani abda nee na ñii ñépp mën a limal moo xam ay malaaka lañ moo xam ay nit lañ moo xam ay jinne lañ mboolem seen ñoom ñépp nee na ba yowmal qiyaamee dañuy ñëw ci kanamu yàlla doon fa ay jaam nee na ñi ñëpp mu lim dañuy ñëw ëllëg yowmal qiyaam doon ay jaami yàlla suñ borom tabaraka wa taala maanaam doon ay jaami yàlla mooy dañuy ñëw sukk ci kanamu yàlla toroxlu ci kanamu yàlla wan yàlla ne ko noo ngi nii say jaam lañ doon gi nu doon ay jaami yàlla dañuy ñëw ci kanamu yàlla sukk ci kanamam ñun ñëpp toroxlu ci kanamam wan ne ko yow yaay buur bi ñun ñooy say jaam ay jaam dong lañ fii nu sukk toroxlu ci sa kanam mënuñu fi dara amuñu fi dara amu amuñu fi benn ndogal wax ji nag taalibeb daara bi yor pot di yalwaan ci la bokk sëriñub daara bi toog di ko jàngal alquran ci la bokk góor ñi ñëpp ci lañu bokk jigéen ñi ñëpp ci lañu bokk kilifa gu mag gi toog ci ab bagam ñu di ko indil ay addiya mu di nu ñaanal ci la bokk ñun ñu di ko indil ay addiya di sàkku ci moom ñaan ci la nu bokk ku bon ci la bokk ku baax ki ci la bokk ñëpp amul seetee ñëpp nag ay jaam la ñu doon ci kanamu yàlla amul wax amul yëngu amul def dara ñëpp dañuy tukk ci kanamu yàlla doon ay jaamam di ko déglu nag ñëpp waaw xanaa di nga ni ñii moom bari nañ di yàlla mu ni ah lu ñu bari bari day xamal ni laqad ahsaahum wa addahum adda ñoom ñëpp xam naa ni ñu toll lim naa leen def naa leen ci ab liste liste baa ngeeg man amul kenn koo xam ne dana manqué bis booba yowmal qiyaam ñëpp ay teew ñëppay teew amul kuy manqué liste baa ngeeg suñu borom xam na nañu toll xam na ñu mat te ñëppay ñëw. xam nga sax bu dee am mbooloo la dana yomb yàlla mu ne loolu sax day yomb waaye nag na ngeen xam ni day wa kulluhum aatihi yawma alqiyaamati fardan te yéen ñii ñëpp nag du mbooloo ngeen ñëw groupe de kenn kenn lay recevoir kenn kenn lay recevoir laaj ko li mu doon def fii ci adduna baax na wala bon na su baaxee ma àtte ko ci loolu su bonee ma àtte ko ci loolu yéen ñëpp lay àtte du ma boole am mbooloo de bëgg lu gaaw benn benn lay doon ndànk-ndànk kenn ku ci nekk danaa lëj mët say mbir ba mu leer naññi moo xam ngay ndongal daara moo xam ngay sëriñub alquran moo xam ngay ku ñu wooye sëriñ moo xam ngay ku ñu wooye ab taalibe moo xam ngay góor moo xam ngay jigéen ngay ku baax mbaa koy bon ñëppay teew ci kanamu yàlla kenn kenn suñ borom laaj la amul nag kenn koo xam ne dana yóbbaale kenn di ko dimbale amul kenn ku yóbbaale kenn pour sauver ko ñëpp kenn ku ci nekk yàlla lay diglu muy wax loolu mooy sunu fàttalik tey bokkum jullit nekk ci suratu Mariam laaye 93 94 95 kon loolu na leer ci suñu bopp ñun ñëpp loolooy jàngat bi nanu ko boo ko bàyyi xel ñun ñëpp yal na nu yàlla boole ca ñay taxe ëllëg yowmal qiyaam yal na nu yàlla boole ca ñemi yërëm ëllëg yowmal qiyaam yal na nu yàlla boole ci jaamam yi ko gën a ragal ci adduna yàlla nangul ñu defal nu jàmmi adduna ak jàmmi yowmal qiyaam defal ko mboolem jullit wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.